ni benn par benn ci benn yi mhm. ay jigéen technopole fii minuit lañ leen sànni ñeneen ñi filawoo mhm. génn yow yaa ci gënoon sori demoon nañ booy côté Thiès <laughs> man côté Thiès mais loolu mais ki ko mhm. defoon bokk na ci commissaire Bara Sankaré boobu ak léegi maa ngi soog a jàkkaarloog moom boobu ba léegi yéen a ngi soog a jàkkaarloog man fàtt man bi mu duggee commissaire central fàtte woon naa sax histoire bi dama jékki-jékki kii kan la man bañu ma Bara Sankaré waaye nag am na loo xam ne mënuma ko nangu déedéet te man li ma gëm mooy. moom sax dafa am chance. parce que bu nekkoon beneen sénégalais. du wax du ma la nuyu. day jóg song ko parce que loolu ku ko defoon sa rakk bu jigéen. wala sa mbokk bu jigéen. wala sa jabar sa bakkan nga koy jaay xaw ma ndax yaa ngi dégg. maa ngi dégg baax li ngay wax donc mbañal boobu. moo am ci mhm. Sénégal. bala bi bi nga ko waxee loolu ne ko la jox loxo parce que tortionnaire nga lan moo nekk réaction moom commissaire Bara Sankaré. noppi noppi. mu téye loxam. Mhm. mu téye loxam te pareegu ma si. annoncé naa ne je vais déposer une plante contre Bara Sankaré plainte boobu naa ko déposer parce que weesuwul. du du pour man mais pour protéger les autres sénégalais. ak pour wax yeneen policier yi attention faut pas ngeen jàpp ne. li ngeen di noot askanu Sénégal ba def loo xam ne ëpp na. bokkul ci li leen dénk yéen takk der. ça ne va pas rester impuni. donc mu téye loo xam. ma annoncé la beneen affaire. oui je vais saisir euh, le siège de l'ONU fii ci Sénégal. ndax damaa for ci wewu bay mhm. ne commissaire Khady Fall commissaire Khady nekkoon commissariat bu plateau dafay dem mission Nations Unies ba kooru daaw moo nekkoon commissariat plateau aha mhm. Khady boobu mhm. bi ñuy génnee nit ñi ci cellule Dakar Plateau 23 mars 2022. di leen di dugal ci benn camion bu lëndëm fekk fa ay nit yu am doole ak kagul ñu leen di dóor ci commissariat Khady Fall la ñu génnee kon Khady Fall am na si responsabilité man d'accorduma kooku. Mhm. di dem di dem Nations Unies di dem gàkkal maanaam du soxor de. Mhm. d'accorduma muy dem gàkkal deru Sénégal ak deru Afrique. Mhm. ci mission Nations Unies ndaxte lu mu jàng lay tari benn. deuxièmement policier bu def lu baax dafa war a am lu rëy. waaye policier lu def lu ñaaw dafa war a am warul am lu rëy or. Sénégal dafa signé ay convention internationale contre la contre la torture. mais bien sûr commissaire de police Khady Fall. nangu dans son commissariat ñuy torturer ay doomu aadama. ñu laaj ko mais oto boobu. jël si mhm. woon ñi ñu jàppoon sa commissariat ci ban ci ban kuréel ci état bi la bokk. Mhm. Khalifa ne du ko wax kon xam nga elle est complice. Mhm. parce que moom xam na oto boobu fu en fu mu jógee. xam na mini ndax ministère de l'intérieur Antoine Diome moo joxe ordre am xam nañ oto boobu fu mu jógee ndaxte ci commissariat am la ñu jógee. donc man je vais saisir l'ONU ne leen def leen lu leen neex mais je vous avertis que un j'ai mmh. porté plainte contre elle mmh. deuxièmement les actes dont elle s'est rendue coupable li mu def mmh. mooy dafa jàpp ay nit ay jigéen sànni leen ci filaawo géeje waaye ginnaaw minuit dugal leen ci benn auto ñu leen di torturer ça me rappelle ça me rappelle Alioune Tine Alioune Tine defoon en 2012 ah après la présidentielle 2012 bi commissaire Haroun Sy bëggee dem Nations Unies même démarche bi lañ defoon bind les Nations Unies ne leen li fi xew 2011 ba Euh, ñu ñu dee génne ko ci liste bi. loolu bokk na. Mhm. ci liy defar tamit suñu réew. Mhm. du soxor déedéet. ñun yéene nañ policiers yëpp ñu dem mission internationale. Mhm. waaye munoo di noot di rey. di faat ay bakkanu sénégalais. ba pare nga ne d' accord il faut que ñu defal la promotion. il faut que en fait déedéet ñooñu dañ leen waroon sanctionné dañ leen waroon àtte donc. dëggalaat foofu laay daanelee li nga wax ne moo commencé am. te du kenn te du kenn ku dul président Macky Sall. man nag damay ñaan ñaan mooy. dafa am lu ñuy woowee légitime défense. Mhm. am na xam am na foo xam ne foo tolloo. foo tollee yoon may na la nga fayu. boo fa tollee. Mhm. bu dee sa bakkan daf si nar a rot. Mhm. yow nga fayu. waaye bu fekkee du loolu. Euh, nañu moytu yenn yi. gis naa ay images yàggul mm. trop. benn policier. Euh, bu nekk euh, nekkoon Thiès. Thiès yaa Thiès exactement d'accord defe naa sax xaw ma da doon da doon jéem a nëbbatu ci benn kër. Mhm. après gis ngeen en fait nu ñu ko doxalee sama xol day nàcc. Mhm. bu ma gisee image yooyu. donte ñenn ci ñoom. Mhm. mais xëy na sax kooku bokkul ci policiers yu bon yi waaye sama xol day nàcc. bu ma gisee ñuy toroxal yenn toroxal yi ay policiers wala ay gendarmes waaye tamit sama xol day nàcc. bu ma gisee ay policiers ak ay gendarmes di toroxal ay doomu Sénégal dafa mel ni ñun doomu Sénégal. ay mhm. civil ak ñu sol ay tenue ñooy gaañante suñu biir. Mhm. ngir koo xam ne dafa bëgg dafa bëgg a dafa bëgg a kaarange dafa bëgg mhm. jox kaarange son coup d'état constitutionnel ndax en réalité. mun nañ tënk lii xew jamono ji ci benn baat. le président Macky Sall cherche à sécuriser son coup d'état constitutionnel d'ailleurs. yaa ngi doon laaj lan moo ko waral parce qu'il y a une violence aussi li ñu war a laajte mooy. Mhm. est-ce que sax président Macky Sall mu ngi maîtriser les forces de défense et de sécurité particulièrement la gendarmerie. da nga ci douter que ni amatul une totale maîtrise des forces de défense. parce que. Uh-huh. la gendarmerie en particulier comme ni nga ko waxee. parce mhm. koo xam ne nee na day woote dialogue. nee na dafa mhm. bëgg a pacifier. pacifier c'est ça le mot bi mooy pacifier. maanaam indi jàmm delloo si jàmm ci Sénégal. ngay rey ngay rey nit yi. mais kan moo lay gëm ñaar moo mun am. Mhm. wala président Macky Sall day njuñ jàcc donc day clignoter à gauche waaye droite la jëm. Mhm. wa illah gëm na bu baax li muy wax ci ne dafa bëgg delloo si jàmm. Mhm. mais kon lan moo waral nit yi di rey. donc ça veut ñii di rey. président Macky Sall amatul amatul amatul sañ-sañ ci ñoom. maanaam dañ ko dépassé waxuma ne loolu la de. mais bu ñu ko dépassé c'est un danger pour ñun ñëpp. mais ah lan la fi mujjee wax. il y a des yoo xam ne. Mhm. bu ñu moytuwul. ñun ñëpp lay ñàkk. dinaa ñëw ci dinaa ñëw loolu waxul yéenay ñàkk de. dafa ne ñun ñëppay ñàkk. le pays y compris il a dit comme ça. dinaa ci ñëwaat léegi mais dafa am leneen loo xam ne xew na ci ci ci week-end bi en tout cas ñun Walfadjri euh, dund nañ ko. mooy lacrymogène yoo xam ne dañ ko sànni ba sànni ko ci biir Walfadjri euh, euh, maa ngi wax sànq ne keroog ñi fi xëm ci kër gi ñu bëree bëri la surtout ci xale yu jigéen yi nga xam dañuy traîner des maladies respiratoires yàlla def mu fekk fi benn journaliste tubaab moom li xew yëpp ci biir kër gi la ko fekk mu confirmer loo xam ne kenn ci ñun muy Pape Sané daf ko yàgg di wax ni lacrymogène yi nga xam ne moom la ñuy sànni fii ci Sénégal dañ ko interdire en Europe en France particulièrement tubaab boobu journaliste tubaab boobu wax ne depuis 2020 déjà avec les événements des gilets jaunes lañ ko interdiroon et pourtant on continue à l'utiliser au Sénégal ñun ñu ko nooy keroog ku ñu wax ne lii mënul rey doomu aadama dañ koy weddi alors euh, le député que vous êtes lan nga yaakaar ne moom la ñu war a def pour leeral mbirum lacrymogène yooyu la ñu tere France ba pare ñu ko utiliser contre des Sénégalais est-ce que xam nga ni mhm. ci laaj yi yi ma tàmm laaj gouvernement. Mhm. bu Sénégal am na laaj boo xam ne dama ko laaj ministère de l'intérieur. Mhm. ne ko monsieur le ministre dama bëgg nga wax ma. grenade lacrymogène yi ngeen di tirer. Mhm. lan mooy composition bi. lan lañ ko defaree. waaw maanaam lan lañ ko defaree lan moo nekk ci biir. ndax dëppoo na ak wér-gu-yaramu doomu aadama. te loolu sa ëpp na ay weer. mot na at ëpp na bi ma la mekki bi ma ko laajee euh, ministère de mhm. daal ma lëndëm dalal na sama xel waxuma daal li ci euh, yoo xam ne. Mhm. grenade lacrymogène yoo xam ne dëppoo na daal ak yoon. yaa ngi fàttaliku le 15 mars. Mhm. le 15 wala le 16 mars 2023 mooy bi may jàpp président Ousmane Sonko. oui ñu dugg ci oto bi. ma ceinturé ko. ndax yaa ngi fàttaliku li xew après. dañ ñu mais Moustapha li ñu pompé sama bët euh, buñ ma waxee ne dans cinq ans ou dans dix ans lii dina ma dal. du ma ne déet. sa mais man mënuma xool mënuma ubbi samay gët. Mhm. ba egg tribunal pendant une heure de temps. Mhm. sama bët yi bu ma ko ubbee ci lay gën a métti bu ma ko tëjee day métti. bu ma ko mhm. ubbee du ma gis dara. mais man j'ai dit vendredi que ni lacrymogène bi ñu ko taalee xaw ma fan laa jaar ba. ba dugg sama bureau parce que je parvenais pas à. mais du ma bett di gis mënu ma woon gis nature normalement. nooy ma waxaale wuñ ko. du ma bett alors euh, nga ne euh, yow pompe nañ loo xam ne ah, déjà même bi la def. mais doo xam fooy jaar. même président Ousmane Sonko. même pompe bi laaloon na ko. donc man pendant mais à un moment donné. Mhm. Ben Taleb Sow. Mhm. détenu politique. actuellement en prison. Mhm. politique di leen di wax. ñu ngi continuer xeex bi incha allah di génn. Hmm. di ngeen génn. Hmm. benn Talib Sow moomu doon womat ba tribunal parce que gisatuma dama doon dox ni. Hmm. mais ma ubbi samay gët. ci takk der yi ñoo ko pompe. ñoo bien sûr ñoo ma ko pompe boo xoolaati image yi maanaam ci biir oto bi. di ngeen gis comme dama ko ceinturé woon. oui oui ko xëcc mu génn. maa ko jàpp. pour ñu pompe mais dañ ma pompe rek ma bàyyi ko. parce que douleur bi day fort foor boo xam ne. non doo tal leneen non doo tal pour ma confirmer li ngay wax ci ne. grenade lacrymogène yii naa yi nga xam ne. ci xaalisu askanu Sénégal lañ ko jëndee. pour kaaraange askanu Sénégal et non pour noot askanu Sénégal. il faut ñu seet setantal ko te man posé naa question ki nga xam ne moom mooy. ministre de l'intérieur mhm. lenn laa ciy dolli damay jël engagement bi fii mhm. même bu fekkee jàpp naa ne Macky Sall léegi mu dem damay jël engagement bi fii mhm. pour ñaar benn bi dafa am solo ma jël engagement bi ma jëfee ko parce lépp lu ma jël dama koy suivre. Mhm. yàlla bu defoon sax Bassirou Diomaye Faye moom lay ñaan. moom mhm. lay campagnal nekk président dinañ ko topp damay jël engagement fii ne. ci biir semaine bi mhm. naa déposé benn commission d' enquête parlementaire autour des grenades lacrymogènes. parce que question écrite franchement. mais question écrite laa déposé woon. di yaakaar ci gouvernement bi mu wax ma dëgg parce que le gouvernement du Sénégal askanu Sénégal lay liggéeyal dafa war a wax dëgg askanu Sénégal. Mhm. ne lii may jëfandikoo lii la lii la lii la naa def une commission d'enquête parlementaire pour ñu xool mhm. ngànnaay yi nga xam ne suñu takk der yi ñu ngi koy utiliser ak su euh, ñu ngi koy jëfandikoo te ñu jëndee ko ak suñu xaalis. Mhm. ngànnaay yooyu grenade lacrymogène yooyu pompe yooyu lan lañ ko defaree. je vais faire allusion c'est dañ ko interdire. lan moo tax lu ñu interdire ñu koy jëfandikoo fii te muy benn doomu aadama hmm. melokaan bi rek moo wute alors j'ai vu vendredi euh, ñenn ci ñun d'ailleurs je euh, euh, alhamdulilah ñu ngi commencer retrouver le leurs esprits ndànk-ndànk parmi les gens qui travaillent ici à Walfadjri surtout ji jigéen ñi ñoo xam ne Guy Marius bi ñu sànnee lacrymogène yi am na ñoo xam ne tëdd nañ pendant une heure xamuñu fu ñu nekk am na ci ñoo xam ne malheureusement muy Thiama sa Moustapha Diop ak su ma juum Salma Ibrahima Fall bi ñuy lakk lacrymogène dafa leen fekk ñu dugg ci ascenseur bi il a fallu boo demee xam naa ne gis nga ko sànq a fallu ñu dajji ascenseur bi dagg bunt yi derrière ascenseur benn porte mi ngi ci suuf. non je et voilà pour mën leen génne ça veut dire quoi que ni ces lacrymogènes là keroog mënoon na fi faat. doomu aadama ci lu gaaw yàlla moo ci def sutura donc une commission d' enquête parlementaire pour essayer leeral loolu am solo la. alors pour rester ba léegi ci mbirum euh, xeex bi ngeen xeex pour no contre le report des élections j'ai envie de vous dire que malgré li ñuy def nii yëpp le président Macky Sall Euh, soo déggee entretien bi mu mujj def xam ne kii il est comme ni ngeen waxee il focus sur quelque chose moom il est focus sur quelque chose moom it alors li ma bëgg a